bravo mais jën naa ci ay cocktail molotov wala joxe naa ci ñu jënd ay cocktail molotov peut-être que benn ci cocktail molotov boobu ñu jëndoon ci xaalisam moom moom moo rey ay nit loi d'amnistie dañ ko war a teg ci suuf parce que y a eu des gens du parti PASTEF ou des sympathisants de PASTEF ou des sympathisants tout simplement d'Ousmane Sonko ñoo xam ne bokk ñu ci parti bi mais moom lañ bëgg wala am ay nit ñoo xamee ni ñoom yoon lañu bëggoon ñoo xamee ni seen bakkan des na ci mbir mi am na ñoo xamee ni seen yoon nekk ci woon dañ doon dox di romb faat nañ leen ci manifestation yi amoon ba pare ñu ne non léegi nañ jël lépp teg ko fële ay nit di ñëw tey di mën a wax naan maa ci def nangam maa ci def nangam li nga ci def ndam la la ba ndam nga ci am xam nga ba ndam la nit war a am tey j'ai contribué à l'éclatement de la vérité dans telle affaire ou j'ai contribué à changer les mentalités ci ni ma waxee wala la ma defee wala nangam ak nangam loolu man pour man ndam lay doon et la critique pour rejoindre un peu Michel critique si mais gis nga gouvernement day nangu critique parce que mooy tax mu defaru nul n'est parfait la perfection n'est pas de ce monde su ma critiquer Michel c'est parce que peut-être moom am na lu mu jàpp mais man wax naa ko loo xam ne peut-être gisu ko wala mën na ko gis waaye nu mu ko gisee ak man na mu ko gisee du benn mën nañoo waxtaan ba mu ne ma non yow li nga wax d'accord ma ci mën na ma yey comme mën nañu waxtaan ba man critique ba mu ko jox man ma yey ko moom mu am lu mu ciy soppi Euh, le président Diomaye Faye l'a dit une fois Ousmane Sonko bañul critique au contraire ka kay critiquer lay gën a déglu ka kay nga xam ne dafay ñëw naan ko gongo lépp rafet na lépp baax na gis nga ki lay ragal sa di la raay chaque jour moytu ko kooku du sa xarit sa noonu la. lépp ci par rapport ak ñenn ces propos